bismillahi irrahmani irrahim allahuma innaka xaqaqta rajai fi ma zanantu anta ya akram inda zanni abdika falyazunna bika ma shaa fa bidalika sakartuka dakartuka bi hadihi al abyat mutabarrikan bi qawlik fadkuruni adkurukum rajiyan minka an tadkurani biha indaka wa inda ibadika alsalihin dikran asaadu bihi saadatan la shaqaawata baadaha abadan amin ya rabbal alamin faasat xilaami alyawma bilxayrayni in shaa man yakfiini ad-dayrayni faasat xilaami alyawma bilxayrayni in shaa man yakfiini الديرين أقرضت رب الله كوني عبده وقديم عبد الله في الدارين ذكري وشكري للذي قد كان لي بحبيبه المختار في الكونين kaafatuhu subhaanahu inda al-idaa wa ataaba nafsi al-aama fi al-ithnayni rumtu sukuura li qaabidin kaffa al-adaa anni wa anni yasrifu an-naarayni wajjahtu wajhi lilladhi saaqa al-munaa لي وحده ويقيني العارين رمت الشكور لقابد كف العذا هني وعني يصرف النارين وجهت وجهي للذي ساق المنى liya waxdahu wa yaqiiniya alcaarayni ناجيته وأجابني باللذبه قد سرت للمختار كالجارين ناجيته وأجابني باللسبه قد سرت للمختار كالجارين yaa rabbi salli wa salliman fi sarmadin abadan ala man jaada bil bishrayni ala al baraya xayra doonam tira man madhuhu yakfini yassarrayni dulli bihi laka saara xiddi haa hunaa faqini bihi abadan adal xarrayni kansi kitaabun minka qad jaa'anaa bihaa dikran xakiiman yakshiful gammayni kansi kitaabun minka qad jaa'anaa bihaa ذكرا حكيما يكشف الغمين كنزي كتاب منك قد جانا به ذكرا حكيما يكشف الغمين ربه التلاوة والصلاة على النبي وكفيتني بهما أذل أدا ذي الميمين ربح التلاوة والصلاة على النبي وكفيتني بهما أدا ذي الميمين كتبي معا والكاتبان شواهد لي والشهور بذا مع البحرين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 sëriñ bi sunuy gaay a ngi noo ngi nii sarax nooti jàmm ak teraanga ku yiw sunuy gaay a ngi noo ngi nii yaa ngi nii tawal taw bu dal xel bu tooyal lu wow danga mel ni am ceebo gaa yëpp yow la dox di xaaroo ka seenoo kanaw fi sebbee ngi lay woo fi sebbee gulit ñi ngi woote foo dem ñi ngi bëgg taw ñi am lëf dañoo bëgg ndol leen ci yow ñi ñàkkit dañoo bëgg am lëf ci yow falal ñëpp ful ñëpp may ñëpp yiw te leeral sa digg ak nu nit faw yow sëriñ bi sarax nus ndoole ndax nu jëfal lëlëf lu rëy lii nu fas am doole rek kay waral mu fes sëriñ bi sarax ndoole ndax nu jëfal lëlëf lu rëy fas am doole kay waral mu fes sëriñ bi musal nu ci wut lenn lu dul yow te sax lu dul yow bun xam te bun am kuy wut lu dul yow dalaa xamul yow ne ku la xam yow du faale yëf yi sëriñ bi ndab lañ te lu tilim lañ te kat sa ndab lañ raxas nu duy nu raxase nuy mbég du yeenu ay mbég feesale nuy mbég man nga defal nu nun ku nu yalwaan ñu di la yalwaan faw akay xaar yaa ngoogu noo ngi nun ku nu yaakaar ñu di la yaakaar faw akay xaar yaa ngoogu noo ngi